ah Fatim mu ne xale yi dañuy daw jàng pour setaan sax yeewu leen quoi voilà. Pacha am na ko ñu mise à pied parce que da doon tardé liggéey. en plus. Ah. sérieusement daf ko def semaine bi yëpp ñu <laughs> mise à pied. ko ndax am na itam soxna soo xamante ni dafay diri teleem ci wetu waañam pour mën a togg en même temps <laughs> di seetaan. <laughs> c'est ça alors balaa ñuy jàll ci leneen dinañ dem dans quelques instants. bokk na centre d'appel bon. foo leen seen foo man ma jël ñi nga xamante ni ñooy woote 88 628 65 65 allo. allo. allo allo. allo allo. allo. moo nga ba Ndar moo nga ba Ndar maa nga ba Ndakaaru allo. allo allo. alo <laughs> allo. mais allo quoi. ñu ngi lay dégg. alo allo. allo. hello oui. je vois ma Pape Cheikh. dafa génn dafa génn. ma la police kooku kan la. allo. waaw ñu ngi la dégg ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. waaw c'est madame Rosine Euh, Adja Ndeye Ndiaye moo woote wala kan moo voilà man dama dama yàgg si ligne bi. kan Roseline. Roseline. damay Rosine Ndiaye Adja Ndeye Ndiaye. Rosine Ndiaye Adja Ndeye Ndiaye. voilà. ah na def. j'ai tellement duré sur la ligne et c'était pour vous avoir. moo taxit am nga ñu. team. voilà man eh, ak sama. team. on est là pour vous réveiller. vous adore vous tous. jërëjëf jërëjëf merci et eh, macha allah vous êtes une équipe dynamique. merci merci. vraiment. vous êtes sans problème et vous animez bien. Eh, eh, naka lañ koy waxee nous sommes gentils et on donne de l'argent. <laughs> il est gentil et il donne de l'argent. il est gentil. il est gentil il donne de l'argent. <laughs> vraiment je vous adore hein. jërëjëf jërëjëf merci. je souhaite à euh, Mado. Uh-huh. un heureux merci. beaucoup d'enfants. amiin jardin d'enfants wala équipe de <laughs> <laughs> de football onze. amiin amiin. <laughs> incha allah non euh, euh, fan fan nga dëkk. maa ngi dëkk SHS sénégalaise habitat social. ah SHS. waa géejewaay géejewaay la noonu. géejewaay la excédé miin na foofu. sama ruq. Ah, mu ngi doxloo grand bu bam naan ma géejewaay. Ah. géejewaay. Ah. alors naka waa géejewaay. ñu ngi fi. mbaa jàmm ngeen fanaane. alhamdulilah. yow la ñuy dégg loo bëgg loo bëgg nag ñu defaral la loo bëgg man ak sama tiim defaral la tey ci yeewu leen bi. ah xanaa rek ngeen jox ma cinquante mille yi rek. cinquante mille bi nga bëgg ñu jox la. waaw waaw. cinquante mille bi mille bi de boo ci daloon sant yàlla. ligne bi dama yàgg ci ligne waa tey bu ñu yëkkati woon cinquante mille yi léegi ni may la ko loo ci nar tey ci ajjuma euh, bi. ah xanaa sant yàlla surtout tey nga xam ne dañuy war a kii dañuy war a kuule. ah da ngeen di kuule. waaw dañuy kuule ah, da ngeen di da ngeen di tabax xanaa. waaw bu ñëwoon. Mhm, ah mhm. day baax rek si ñun. day baax ci yéen. waaw. léegi xam nga nu may def ak yow. ah. Euh, cinquante mille yi ba tey du bokkee. Ah. ak li ma lay nuyoo. Mm-hmm. d' accord. dem nga marché wala demaguloo marché. Euh, non de demaguma marché nag sama goro mooy dem marché. Ah, sa goro mooy dem marché léegi huit heures da na daanaka léegi mu naaj de. ah enfin baax na heure bi baax na. waa léegi te te te te nga ko bett ak dépense su tey. Ah, su ma nee nekk que ni moom. téema laa téema laa téema laa jox joxandi gum parce que cinquante mille bi itam. man ah. nañu la woo ne yaa ko moom may nañu la ko. xam nga nu may def. waaw. teema koo xaaj pour le moment joxagum la. ah macha <laughs> ma. joxagum ko ñaata. juróomi ah, junni. yéen a yéwén. yaa ah, yéwén yéen a yéwén. Ah, waaye xale ngeen di ñaata laa koy jox. juróomi junni waaye yéen a yéen a yéwén. yaa ñu ko tàmmal waaye lu leen dal nii. yaa ñu ko tàmmal waaye yéen a yéwén. yaa ñu ko tàmmal. yéwén ci moom. dofta faju. d'accord léegi comme comme comme sama yi ñu ne ma jox la vingt cinq mille waaw dama lay njëkk a jox vingt cinq mille mais vingt cinq mille yàlla xam na ni bokkeewul ba tey ak fukki junni yi nga xamante ni moom la ñuy maye mm-hmm. vingt cinq mille bi ñun ñoo koy joxe ci yeewu leen incha allah mille bi itam beneen affaire la pour neexal seen week-end d'accord d'accord mm-hmm. alors kon soxna si yeewu leen may na la vingt-cinq mille c'est bien alhamdulilah. voilà. <laughs> tu gardes la ligne comme ça ñu jël euh, sa numéro téléphone ak sa yu baax euh, comme ça grâce ak yónni ma cash balaa moo gën a naaj nga jot ci say juróomi junni et puis euh, fileeg 11h mën nañ la woo itam may la cinquante mille. merci <laughs> internet mu def <laughs> mais yow Mado. alors oh, non non xaaral après nga tas affaire yi beseel fii dañuy communiqué Mado ah non non dañuy communiquer entre ñun donc say say taalibe Xaadim Rasul nee ex sañ-sañ exades sañ-sañ lu rafet macha allah Aliou Masson nee na nos séries du dem même bu ko Macky poussé sax du avancé <laughs> gis ex taxawal taxawal fii ñu gisaat ko mayaat ñu ko tu tournes pas. tu Jodo Mbaye <laughs> Jodo Mbaye elle est en de <laughs> regarder c'est ma petite sœur. elle elle amoureuse de toi. sérieux sama rakk la sama rakk la waaw xanaa gisul li ex sol yëpp li la accompagner ko s'il te plaît <laughs> yow xanaa passé woo sa mbaq pib bi. mbaq pi bi passé woo ko. dafa wala dafa France. dafa France ci ginnaaw est-ce que diw na tànk yi. <laughs> ex. lii moom voilà et et votez votez euh, sur Facebook hashtag sañse sañse Excidex c'est ça et parlez faites des commentaires dites-nous ce que vous voulez. on fii ba fii ba 11 lii mooy àjjuma ku ne ak li ngay sol gars yi dañuy ñëw ak seen ak seen ay xeetu sañse quoi gis naa ci ñoo xamante ni seen ay yére saf na sa saabu saf ndox. wuy saba ba tey mokk na ndax ay yére yu ñu doon la ah bu dee mën ngay waxal bu dee mën ngay waxal. dégg nga ah. ma dama lay expliquer yére bii nii. Mm-hmm. mariage bu ñu ma invité. Hmm? moom ngay sol ma invité moom laay sol sama yaay da koy jël nëbb ko parce que yére bi non je suis à l'aise dedans ah yeneen yére yi dama koy sol je suis pas bien donc bii robe kese la da ngay en tout cas donc Fatkine merci encore yére bi dinaa ko sol bañ na il y a une autre fille elle est Ibadou Binta Mané elle est en train de regarder LHJ elle dit qu'elle est amoureuse aussi de toi ndax sa sañ sa bi oh yéen a doon xeeb ah xam nga amoon fan TFM ubbee ba ah, tey TFM bi mu ubbee ba tey léegi mu def 10 ans moom daal mu ngi doog a gis lu ko neex ci télé bi ko dara xusuma ñàpp donc message jigéen ndooy nee na à tous Pape Cheikh ex Mado Fatim O Bessel vous formez une équipe extraordinaire machallah dis à Pape Cheikh que sa place et au GFM bonne continuation à vous tous félicitations à Mado et Mam Fatou et puis Nene Boulaye Sarr dit good morning bijou I'm so happy about the show I love you I love you oh. guys so Youssou Pape Cheikh ex the beautiful Mado. ci kaw ci kanam rek. thank you thank you we welcome you we love you too. we love you too <laughs> Pape Cheikh tu as parlé tout à l'heure de Sephora donc il y a une dame qui est à Sephora qui dit vraiment dites à Pape Cheikh que da liggéey on me dàq vous allez m'embaucher je suis toujours à la non sérieusement ñun mhm. CV yi dafa nar a bëri de. <laughs> non on la dàq. si on me dàq gens tu vois et puis y a les élèves qui daw. jàng loolu ça c'est déggeen déggeen ba Sephora. nabu bee nga mhm. xam ne léegi dafa dem ne dafa muur ibaadu. parce que buy dem classe day yóbbaale. téléphone écouteur am jàpp rajo bi di ñu déglu donc daf ko jaral ne bu dafa muuru ibaadu imagine na bu jàngal. ah allah macha allah. ñun nag bu ñu catu suñu Demba aussi artiste que tout le monde ah, connaît. Demba Guissé Demba mu ne police mu ngi lay wër. kan yow ndax solo bu bon conjugaison bu baaxul. Demba Ba Boucherane Fere Télé. ex li nga conjugué voilà alors